bon avant tout euh, maa ngi leen di nuyu de passage le gouvernement du Sénégal mais li may gis actuellement euh, mun naa wax la doy na ma si benn côté. doy na doy na ma si benn côté. Mhm. parce que lu tax ma wax ko dafa am loo xamante ne nit bu koy tàmbali di def njëriñ bi peut-être du tey mais après la parce que ñoom dañoo ñëw ñu incarner audite képp koo xamante ne nii euh, jaaroon nga si boppum réew mi. dañuy saytu ñu xool ba xam est-ce que luubaloo wala euh, euh, luubal nga wala luubaloo. Mm-hmm. ñu aussi def enquête de moralité pour les ministres bépp ministre boo xamante ne nii ñëw na bokk si gouvernement bi yow xam nga ne sooy génn da ngay wax lu leer. Mm. su boobaa loolu dina la motiver ba yow en personne nga moytu def yenn ñi mais boo xamee ne man maa ngi fi je le patron lu ma neex laay def. tu vois da ngay jël suñu alal alal sénégalais yi nga def ko lu la neex mais boo xamee ne au retour tu vas rendre compte aux sénégalais li nga def wala alal bi ñu la jox euh, fan nga ko dugal wala lan nga ci def su boobaa di nga war a moytu. Mm-hmm. loolu daal li nga gis dalagum na sa xel bien sûr loolu maanaam loolu day tax le sénégalais lambda koo xamante ne ni ñoom wóolu nañ ko ñu jël benn affaire ñu dénk ko yow da nga koy fonk. parce que lu tax da nga koy fonk xam nga yow boo xamee exemple man su ma la su ma la joxee sama téléphone bi ma ne ko téel ma ko. te nga xam ne téléphone bii de su ma euh, su ma su ma su ma sàgganee ba ñu sàcc ko dama koy fay xam nga xam nga doo doo ko sàgganee da nga koy fonk mm. c'est la même chose tey tey jii nii bu ñu la joxee benn ministère te nga war fa liggéey ñu jox la alalu Sénégal alalu sénégalais yi euh, nga koy jël di saax saakee di def lu la neex di jënd ay immeuble di def lu la neex te xam nga ne dara lu la ci fekk su boobaa yaakaar naa dëkk bi du avancé mais ñoom lu ñu démarré képp kuñ tànn comme ministre yow xam nga ne yow lu ñu la jox ñu ngi koy suivre loolu moo tax ala kulli alin téye obligé nga téye ko au sérieux loolu moo tax ma ne la seen démarche ni ma ko ni ma ko gisee. vraiment salué naa ko dalal dalal na sama xel quoi. d'accord.